halaan bikum xeex bu métti sànni wante ay sées ay majéri yu naaw ba ci pompa gaz ak yuuxu wante moom la waa APR yi doon amal démb ca seen daluwaay ba ca ndakaaru léeg si ko yéen kaay ñu ko xamal yow fa ngay xool farandooru Amadou Baya ak farandooru Diouf saar ya fañ doon ñàkkante xeex bu métti ca seen biir ndax fañ doon xamal hab ac ndaje ca juróomi département ya nekk ndakaaru waaye yëfee fa mujj yàqu l'observateur dëggal ko ne APR farandoor njiit réew Macky yi fañ doon raak ba naaw xeex wu mit info yéen a kaay ne fañ doon xamal réunion état masor bu benn bokk yaakaar doon wane ne ñoom ñëpp benn lañ waaye fa ñoo mujj weeru de ndax nekkuñ benn xeex tasaaroo bës bi yéen a kaay ne faa leen di wax la waral xeex ba yaw fa ngay xool Abdoulaye Diouf saar fa jël kàddu di wax ba yegg ci élection 2024 yi ne Ndakaaru Njaay ñun waa APR yi wala Bennoo fa ñoo xam ñaari candidat muy man mii di Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba mii taxaw sama wet rek Amadou Ba gaaw tourné joxoñ ko baaraam bi na ko déedéet faa bëgg nga génne ma ci ba mu set wecc bul wax ci sama tur waxal yow sa candidature Ba fa naqari fa métti farandoori Diouf Sarr ya fa bàyyi ba Amadou Ba jël kàddu na mi ngi wax rek ñu tàmbali koo yuuxu wuuwu ja takarnaase bojo bojo yi seen bàyyi ñëw na ba pare ñu coupé micro ba farandooru Amadou Ba yi na leen ah yéen fa ngeen ñu jaay jeex jàmm kaay leen ñu dem rek ca lañ songo kurpeñe naaw kàtt ga jaxaso Amadou Ba ak Diouf Sarr fa ñu mujj daw dugg seen oto yi dem ndax fañ leen doon sànni ay xeer nervi ya pompe à gaz ya karnaas yow fa ngay foog na rek fa ñoo nekk ci arène nationale lamb ji regard yéen a kaay yi mel ni ku naan gisagu leen dara de pour APR lii lancement la film baa ngi ñëw ci guerre lañ jëm ñàkkante rayante ndax ñi bëgg a wuutu njiitiram Macky Sall fa bëri te kenn du ci muñal sa morom nag ah, yow seetal ministre conseil Abdou Aziz Diop audiom boobu nga xam ne mi ngi ci réseaux sociaux yi internet bi fees del ñu dégg muy attaqué njiitiram Macky Sall naan ko fa ngaa war a bàyyi pexe bàyyil pexe kaddu yi ñagas lool la teg ci kaw njiitiram Macky Sall ak lenn ci ay jege la ko samp ko dafa gis na Macky faalewu ko loolu ñaar la ñetteel bi gis nga Moustapha Diop ak Mame Boye Diao ñoom it danañ wax de fippu gi fa nar a bëri ca APR turbine yéen a kaay ne waaye li am démb seen daluwaay ba xam naa ne njiitëram Macky Sall fa cee nar a am lu ko naqari fay mer lool ndax moom yëf yi fekkut ko fi fa tukki Diouf Sarr ak Amadou Ba moom di guerre ca seen biir yow fa ngay xool bi militants yi di yuuxu tàmbalee xeex Amadou Ba fa leen doon wax noppi leen waaye gars yi faale wuñ ba tax yéen a kaay a daal mooy njiitiram Macky Sall su bëggee kum ñu tànnal ñu woteel ko na fexe tànnal ñu koo xam ne fa ñuy doy bu ñu doyul rek mooy loolu de Seydou Gueye ci Vox Populi mel ni ku ko ah ah warta demee noonu fañ koo doyloo daal kum ñu tànnal nañ topp ci gannaawam te ànd nekk benn moo ñu jik faa leen koy waxal nag réew mi yéen a kaay ne Benno Bokk Yaakaar moom ma ngay xoote bennoo ca seen biir l'évidence yéen kaay ne ay responsable yu nekk Dakar ñoom benn bokk yaakaar la dépêche yéen a kaay dëggal ko direct news ne responsable yu bëri nag ndakaaru ci APR ñoom fa ñoo wax lu leer nañ par A ou B Ba mooy seen candidat 2024 far force fra force doole mbaam ndax Amadou Ba il incontournable info yéen a na leen faa leen di yootal faucon APR yi ñoom bëgguñ Amadou Ba nekk candidat lii yéen a kaay ne Boun Abdallah Dionne xam na ñu bëri ñoo xam ne moom lañ tànn ngir mu nekk seen candidat Mamadou Lamine Diallo tekki ne voilà lii nag mooy firndeel ne yaakaar fay tas candidat boo xam ne ñëpp ci ànd juboo mënuñ koo xam su ko defee fa ñuy tasaaroo ma ko waxee ca l'observateur <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne waa F24 yi àjjuma bii di ñëw fa ñoo fa yéene wàcc ci mbedd yi xamal doxu ñaxtu fa ñuy sàkku ci njiitiram Macky Sall mu bàyyi képp ku bëgg a bokk ci wata 2024 yi nga bokk rawatina Ousmane Sonko ba tey fa ñuy sàkku tëj ga ñu tëj Ousmane Sonko ca këram ñu bàyyi ko mu génn doxi soxla ndax lañ ko def noonu këram du dëgg du yoon ba tey it fa ñuy sàkku ci ñi nga xam ne fañ jàpp tëj kaso te tax ñu bàyyi leen ñu génn Vox Populi dëggal ko Mamadou Lamine Diallo na leen li ci gën a garaaw nag Khalifa Sall ak Karim Wade mi nga xam ne fañ leen di toppee luubal xalalu Sénégal ñoom fañ leen a bàyyi ñu bokk ci wote yi ba tax projet de loi boobu ñu war a wote assemblée nationale nee baaxut ma ko waxee ci l'observateur Bougane Gueye Dany ci l'évidence yi ne moom it fa attaqué ti njiit réew Macky Sall dal ci kawam na ko faa bëgg nga bàyyi ñu ñu jàpp tëj kaso te politique a tax waaye tamit faa bëgg Ousmane Sonko boobu ngeen tere mu génn këram teg fa ay policier ngeen bàyyi ko vox populi na leen voilà gis ngeen Ousmane Sonko waaye groupe bu mag ñoo ko liggéey leer leneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne société bi ñu dénk mu génnee pétrole bi ci suufu Sénégal léegi fa toxal yo fi nee na juin 2024 ci la Sénégal di njëkk a génnee bari ko pétrole am bu njëkk ngir jaay ko léeg si ko yéen kaay ñi ko xamal si du quotidien na ko gis nga pétrole boobu ca Sangomar askan wa nga xam ne ñoo fa dëkkee boo moytu seen ëllëg ci njëriñu pétrole boobu daraa ca wóorul de li wóor wax ñu ko mooy ne groupe poste moom pêche yoo xam ne fañ koo jox ay tubaab bitim réew ci jamono ji nga xam ne Barça ak Barsaq ndaw ñaa ngi dee ci géej gi moo tax fa ñoo nar a xamal réunion daar daar tey ci suba Les Échos yéen kaay moom di ñu xamal ne soxna soo xam ne fa xam ñaari doom fañ koo jàpp daan ko kaso ñetti weer yu mu du tëdd xam nga lu mu defam fa doon jaay boppam ci kanam boroom këram aay turbine yéen kaay moom fa ñoo xamal mbir mu métti yow fa ngay xool fa xam ab mason bu tudd Jabel Ba fa doon tabax ndeysaan daanoo ci quatrième étage rek faatu ñàkk bakkanam l'observateur na ko faa lay wax bu gën a ab bâtiment taax fa daanu ci kaw ñetti doomu aadama ñu faatu ñàkk seen bakkan yëf yaa nga amee ca Touba Daaru Marnaan ba tey l'Observateur fa ñoo xamal benn waay bu dëgër fit yaw seetal waa ji daal fa ñëw ca koñ ba ne moom ab colonel la mu jàpp commerçant ya di noggatu rek di jël seen xaalis ñu ne déete waay benn paa boo xam ne bokk na sa ñam yi noggatu fa mujj ñëw takk doomam bu jigéen ndékkete yoo waa ji daal xaajut bay nekk colonel fa doon triande rek hmm, waa ne ah yow de fag maa a dëgër fit léegi boo jàkkaarloog ak were colonel